Monsieur le ministre, permettez-moi, à l'entente de mon propos, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de se retrouver ici pour inaugurer le guichet de l'Union rurale des mutuelles d'épargne et de crédit du Sénégal, le guichet de Koutiaba Wolof. Mais aussi de procéder aux remises de financement de l'ensemble des groupements de femmes réunis dans des fédérations depuis que je suis arrivé à la tête de la municipalité monsieur le ministre ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay sant bu amul ab damay remercier le directeur général bi jël kàddu léegi léegi muy le docteur Savané je suis installé le 10 février le 9 mars maa ngi bureau ma ne ko je maire nouvellement élu dama bëgg nga jàppale ma jigéenu commune Koutiaba ma jàppale leen ci financement mu ne ma ñun du ñu financer directement am na ay banque ak ay mutuelle yu ñu agréé signé léeg ñoom contrat ñooñu la ñuy financer ñoom ñu financer acteurs yi ma ne ko ñooñu ñan la mu génneel ma lis lu mat fukki banque ak lu teg banque bu nekk ma gëstu la gëstu la li njëtti la xool ba gis urmex ni muy liggéey askan wi mu nekk lu oyof ci askan bi ma dem seeti waa Urmex waaye loolu balaa moo am FADCR dafa yónni mission ci biir weeru koor bu tàng jër FADCR ñëw fi jànkoonteeg jigéen ñi rencontré leen waxtaan ak ñoom laaj leen la ñu bëgg lan la ci financement laaj leen seen i jafe-jafe ñu wax leen ko waa FADCR dem gëstu gis ne ñii war na leen mën a financer. waa mutuel d'épargne et de crédit du Sénégal yombalal ñu liggéey bi ñu ne ma ñun de ci gox boobu. amuñu fa guichet mën neen nag at ci kanam ñu tabax fa guichet wala ñaari at ci kanam man leen bu dee loolu rek mooy tardeel mbir mi man en tant que maire naa jël sama responsabilité defaral leen local bi jàppale ko jigéen ñi. loolu nag bu amee bu amee bés bu toll nii tey mu nekk une première ministre mu moo koy wax léegi léegi tout événement est un avènement aujourd'hui nu assistons à l'avènement du développement de la commune de ba Wolof sous l'impulsion de son excellence monsieur Macky Sall président de la république. jamono bi ñu nekk nii dama ne jamono la boo xamante ni réew mi dafa soxla président Macky Sall am majorité à l'Assemblée nationale. loolu nag pour mu am pour mu am dañuy booloo bokk ndey bokk baay jël suñu égo teg ko fële loolu moo tax ñu yaatal mbir mi maire yi ñu oo ñu ñëw fii ak président conseil départemental li ñu bëgg mooy le directeur général de la FADCR le directeur général de l'URMEX balaa ngeen fee jóge bëgg naa ngeen jël contact ak ñi nga xamante ni mooy sama collègue maire yi fi ñëw li ñu def fii Kouthiaba ñu def ko ci communes yi nekk ci biir département bi yépp dama ne si jamono bi ñu nekk mooy jamono élection législative élection législative yooyu noonu Macky Sall dafa tànn ñaari nit ne leen yéen yéen a may représenté ci pencu ndaw réew ma pencu ndaw réew bu ñu ko waxee mooy assemblée nationale penc penc moomu département Koupantoum ma ngi ca am ñaari toogu lii di wax toogu mooy place place yooyu parti bu ko gagné yaa koy dem jël fii nag ki fi nekk Macky Sall moo fi nekk ci département bi El Hadj Ibrahima Ndiaye tey moo yor drapo Macky Sall ci biir département bi moo nag suñu sœur Teneng Diao ñun ñu gunge leen maire yëpp gunge leen waaye Macky Sall kenn du moom xamul tax kenn du moom dafay xool fu mbir mi dëgëree mu mbëkk yëngal gësam dama ne mu mbëkk yëngal gësëm mbëkk yëngal gësëm mbëkk yëngal gësëm loolu mooy kilifa mu woo suñu frère suñu xarit boroom xam-xam Tamia Silla mu ngi ni toog recevoir ko bureau dalal ko ne ko sama rakk sama xarit ñëwal nga jàppale ma Tamia mu ne ko loolu du ci teg baat dinaa la jàppale ñu ne déetawaay li ñuy wax rek bu neexee mu dolli ñeex mu woo suma xarit suma rakk Ousmane Gaye mu jóge ci parti bi nga xamante ñëw fekk si ñu pour jàppale ñu ñu ngi ñuy toog ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant waaye dama ne boo nekkee député am nga ko topp sa ginnaaw ku jigéen ay Aïssatou jaabi mu ngi fi toog Talla Sow mooy suppléant Ibrahima Ndiaye yónnee na dama ne lan moo des li des mooy ñu jàpp ne région Tambacounda la ñu wax keroog ba sama najaay Sidi ki Kaba jëlee yóbbu ca Macky Sall la mu wax mooy région Tambacounda pourcentage bi gën a mag ci senegal Tamba moo koy def ñun du ñu yendal du fanaanal di leen def lépp ba jël ndam li teg ko ci loxo maître Sidiki Kaba yaakaaru Tambacounda mu jël ko teg ko ci loxo président Macky Sall Macky Sall defar réew mi ni ñi am jàmm ni ñi am salaam. jeunesse bi na ngeen préparé wu na ngeen préparé parce que combat bi yéen yéen a koy gàddu combat bi yéen a koy porté am naa ci yéen yaakaar muy la jeunesse féminine et la jeunesse masculine ngeen dëggal seen bopp organiser wu formaliser wu am ay këyit parce que liggéey état da koy joxe mais état mënul jox ñëpp liggéey. li ma bëgg mooy yéen ngeen jox seen bopp liggéey jox seen bopp liggéey mooy ngeen am ay këyit dem def li ñuy wax entrepreneuriat rural ñi ñu fi indi loolu mooy seen mission. le docteur Savané qui est venu au nom de mon collègue Moussa Baldé au sein du gouvernement je tiens à dire que son engagement pour réaliser le programme du président de la République en mettant à la disposition des femmes en promouvant particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes avec ce fonds, a voulu aujourd'hui, avec une enveloppe de plus de 130 millions, dont 33 millions sont décernés à Koutiaba Wolof, faire en sorte que femmes puissent bénéficier de financement. Je voudrais m'adresser femmes. Vous avez financement exceptionnel. Ce financement Le maire Abdoulaye Ndaou est revenu là-dessus. C'est un crédit. Il faut travailler et donner la chance à d'autres femmes de pouvoir bénéficier de ce crédit, le rembourser à temps et de continuer à faire que ici et ailleurs, dans les dix communes de, du département de Kumpeltum, toutes les femmes puissent bénéficier donc de ce crédit. Je voudrais dire, et ça c'est le troisième message, C'est le message de l'unité. Nous sommes unis à Tambacounda, debout pour aller à la victoire. C'est ce que j'ai trouvé ici. Et c'est ce qui plaît au président de la République. La main dans la main pour aller vers la victoire le 31 juillet. Et ces élections, nous devons les gagner. Nous devons les gagner haut la main. Ce que j'ai entendu ici, c'est un message d'espoir. C'est un message d'engagement. C'est un message résolu. Parce qu'on parle de chiffres de 98%, de 98%, ce que veut dire que les femmes, les jeunes, tous réunis, sont à faire en sorte que le 31 juillet, nous ayons une victoire éclatante. Alors n'oubliez pas, nous avons nos candidats. Vous avez derrière vous, vous le connaissez Bamba Tchalen. Vous le savez pertinemment qu'il un homme engagé, qu'il est Ibrahim Ndiaye, un homme décidé et que de tout temps, il s'est mis au service de sa communauté et de l'ensemble des populations sénégalaises. Nous avons Teren Diaw, qui est aussi connue, une femme engagée et qui doit être soutenue aussi pour que notre liste, nos deux candidats, puissent remporter haut les élections. À Tambacounda, nous avons aussi deux candidats. C'est Yaï Awadjan, c'est Bilaliba. Et vous savez, notre région, nous avons sept candidats. Et ces sept candidats, nous devons tous les soutenir. Et si nous allons à la région de Kédougou, avec les trois autres, cela fait dix candidats. Au niveau du Sénégal oriental, cela doit être notre engagement de donner les dix candidats au président de la République Macky pour montrer que le Sénégal oriental est uni derrière son président de la République, l'homme qui a réalisé ce qu'aucun n'a eu à réaliser dans tous les domaines, qui reste un grand président et que nous soutiendrons toujours. 31 juillet ñoo ko res 31 juillet juillet juillet juillet juillet juillet juillet